waaye di am mbégte ndax bés bii boo ñëwee tey di nga xam ni ki ko woote jikkoom moo waral li lépp waaw jikko dafa am solo mooy mbaax mooy yiw mooy tabe mooy tedd nga mooy yëg doomu aadama yi mën nga luwee baas yi luwee sees waaye nit ñi kenn du leen luwee sëriñ Basiiru mbakke bu sëriñ Xaadim Awa Ba mu sëriñ Baara mu Seexul Xaadim mbaax gi na ci moom tey diw baax na ndax mbokk yaa ko wax boo fi ñëwee li fi nekk ci ay mbàkki mbàkki kenn xamul mu toll li fi nekk ci kër Sidi Hadji Malick kër Bu Kunta kër Limaamu kër Seexu Ceneba mboolem ëttu kër diine yi kër Seexal Islaam euh, nga xam ne Sëriñ Basiiru Xarim aw Ba mbaax ak tedd nga dafa nekk ci moom te fu ñuy waxtaane nitu yàlla nag mën yërmande yàlla fay sotti ko moo tax bis la boo xam ne daal lislaam bee yëkkatiku l'islam bee am ndam ndax ku ñëw fii gis mbooloo mi nga xam ni euh, sëriñ baaramu Seexul Xadiim it mi ñuy defal bis bi kenn du moom am nañu mbégte. Euh, at yi ñu génn dafa tombeek Covid 19 nga xam ne journée bi amul daaw waaye gis nga ren dafa mel ne nit ñi dañ koo gën a woo moo tax kon li ñuy def beneen yoon dañuy yokk tànt bi ndax boo gisee tànt bi 4000 places lay jël waaye ba léegi doyul kon nag euh, woote bi ñu woote tey jii di ko. sargal ku màgg kooku di Cheikh Mouhamadou Lamine Bara moom Serigne Touba mel na ne soxal na nit ñi ndax bii mooy quinzième édition waaye toog na ñaari yoon yoo xam ne defuñu ko ndax eh, ndok bi fi amoon Sénégal te suñu borom def ci sutura ba àggul fiñ ko fooge woon euh, ñu ci ndokkeel bu baax suñ kilifa diine yi euh, ku ci mel ne sëñ Mountakha Bassirou bi Covid bi ñëwee gis nga taxawaay bu am mat bi mu fi taxaw waaye yeneen kër yi diine yëpp euh, seen kilifa yi taxawaay yu am solo yiñ ci taxaw waaye mbooleem Sénégal gi yëpp tamit matuwaay yi ñu ci jël. bis bii nag day bis boo xam ne dañ ci wane ku sell kii di Cheikh Mouhamadou Lamine Bara waaye dañ ci wane am njàngaleem ak dund gi daan dundal lislaam ak dund gi mu daan dundal yoonu murit waaye dundal gi mu daan dundal euh, euh, xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon koo xam ne murit nga war ngaa fàttaliku Cheikh Mouhamadou Lamine Bara képp koo xam ne doomi réew mi war ngaa fàttali ko Cheikh Mouhamadul Amin Baara waaye képp koo xam ne ni bokk nga ci xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam war ngaa fàttali ko Cheikh Mouhamadul Amin Baara kon nag xam nañ ne li ñuy def nii dañoo war a góorgóor góorlu gën a góorgóorlu ah yokk taxawaay bi ba ba gën a amal njariñ Sénégal ndax boo seetloo suñu mag ñi nga xam ne dañoo jiitu ah, am na lu rëy lu ñu def waaye ñàkk taxawaay moo tax ñu nar a perte lu baree baree bare ndax boo xoolee réew mi ni mu tëddee ak Afrique ni mel léegi nga xam ne euh, soxla woo nañ jubbanti nit ñi waaye soxla woo nañ euh, gunge ndaw ñi ndax boo xoolee seeni doxalin ak seenu melo da lay tiital ci lu baree baree bare moo tax nag euh, ñu wane kii nga xam ne moom ci 46 ans la dund ndax sëñ Baara sëñ Baara boo ko dee tudd boo ko dee tudd day mel ne mag la te ñun ñii suñu aas ñoo ko magoon ca gis nga li mu taxawal ginnaaw Serigne Touba moo ëpp lu mu bind ci xeetu xam-xam ci fànn yëpp xam-xam boobu nag dafa am lu bari lu mën a def ci euh, ci Sénégal waaye lu mën a def ci ndaw ñi moo tax ñu fas yéene di ko at mu jot ñu génn ci benn benn benn benn benn pàcc euh, dëk dëktal ko ndaw ñi waaye xiir leen ci bañ jaar ci tànk yooyu di ci toftal euh, at mu jot kenn ci doomi Serigne Touba yi ba mu matee ñu àgg ci ñi nga xam ne moom la Serigne Touba bokkal gis nga ren ñu ngi ko tuddee maam seex Anta mooy ay magam wala rakkam maam seex Anta di rakkam euh, maam Mor Jaara gis jaar na fi ñu tuddee ko maam seex Anta ak Serigne Xaafe Mbakke ñu bokk lépp ku ne xam na ne euh, maam Cheikh Anta ku Serigne Touba wormaaloon la kum wegoon la kum bàyyi woon xel la ndax ba mu euh, jógee ci tikku ba moo ko